gars rek di seetaan li nga xamante ni ah, mooy IGFM mais daal di dugg si biir xuus gis nga ma xaw a ceen tuuti ah, def fas yéene baal fas yéene wane ah, li mooy sama look gis ngeen loolu kon li ma wax rek li may def mooy damay ñëw waxtaan ak kii nga xamante ni man nee naa kenn dootu ko présenté am sorry kenn dootu ko présenté du Sénégal kii mooy Kange Kange macha allah borom mais Kange happy new year. happy new year Hawa. maa ngi lay yaa xam ne ma bëgg ci at bi yal na ko sunu borom defal ak bépp doomu sénégalais boo xamante ni tey jii ñëw na tey fii nii ndax Youssou maa ngi ñaanal képp kuy doomu sénégalais rek yal na la sunu borom sàmm taxawu la jàppale la at bi ñu dugg yal na nekk at bi nga xamante ni moo ci at yëpp macha allah na ñëpp am jàmm. Ah, jàmm ak salaam ah, Kange gis naa ne ah, xale ñëpp dañu génne benn style boo xamante ne d'habitude booy dem Youssou Ndour da ngay def veste. am toq lu prié loo laal euh, gis naa euh, tey am nga foo xamante ne génn nga fa xam naa da ngeen a euh, sañse Kange mu daal di ma décortiquer tey moom li mu sol lan la tey sa Kange lan nga solati. awa tey damaa simple ndax man bu may ñëw Youssou Ndour damay bëgg a simple parce que dama koy bëgg a enjoy tey sañse ma tey dama ko oyofal damaa ubbi rek jël bi njëkk a wadd <laughs> mi ngi noonu en tout cas man am naa benn perruque si yow I love this hair. thank mi ngi noonu gannaaw loolu kii ñëpp xam ma ak moom Sénégal. ñep xam nañ ma ak jaaram chic face mu nek xale bo xamanteni ma sha allah ku ndayam gëreem nit ku baax bari wul limakoy waxal lu baax waye xam nga situation oblige ah moo tax nag waaye lépp lu ma la waxal tay deug la xale bu baax nga kat nga nit ko xamanteni nga bëgg nga say client doy war lay joy ci yow ma lay ñaanal happy new year lay wax say client happy new year awa Je vous remercie di remercier ñoom ñëpp di kontaan si confiance bi encore renouvelée kontaan naa trop vraiment happy new year to all my customers euh, année bii di ñëw yàlla na dàq yi ñu jógee ma ngi leen di ñoom ñëpp yokkute vraiment. yàlla si am jëkkër ki nga xamante ne yaa ko jël gaawal ñëw. thank you so much. tey li nga sañse lan la. sama is uh, moo ma jaay hair style bi Kanga style as usual moo may defaral sama bopp. chic face on makeup. ah <laughs> thank you. so by the way you're looking all chic. Eh, kon boog li may def mooy eh, fan laay dem tey xoolal fu ma neex dem eh, Mouhamed yaa may jox direction gis naa ne ñëpp a ngi xool Youssou tey man dafa lu ma fi gis lu bees lu ma jaaxal man daal Youssou jaaxal na ma Youssou tey si digg si digg géew bi la taxaw xam nga d'habitude fele la mais dafa ñëw taxaw si diggu géew gi ne nag damay defanteeg yéen lu baax comme d'habitude nu may def nan laay def salaamaaleykum na ngeen def. yéen si jàmm yéen a ngi toog nii macha allah jàkkaarloog Youssou Live and Direct ak waa Super Étoile eh, soxna si noo def noo tudd. mënuma wax. Ah, mënoo wax kon enjoy toi ça va nga def eh, li nga so rafet na torop macha allah eh, tey loo yëg jàkkaarloog scène bi nii ak Youssou muy way. rek neex rek buñ kontaan daam holiday bu neex la ñu am. Wow, Haramalak la anglais bi mom la gëna xawa fort tuti. Oh yeah, that oh my god. Yak may jël. So I'm going to do I'm going to introduce myself. Uh, are you from Gambia? even from England you know. Oh, eh, ne eh, ni ñi ni nit ñi di waajalee li nga xamante ne mooy benn si ah, noonu la ñuy waajalee grand bal ba tax na ñëpp ku fépp foo munti nekk da ngay ñëw eh, ki Angleterre la jógee ko kenn si ñi ma gisagum kenn ma lay nuyuwaat encore une fois one more time hello. Happy New Year. Happy New Year to you too. How do you feel looking at Yusu while she's performing live? Yeah, I'm so great. I'm so grateful to like. I'm a content, but I don't have any, you know, I don't have something to say because I'm. What's your New Year's wish? Um, happy and happiness. And happiness, yeah. Just my background, be. Just my background, be. Yo, me me setan. Hold a second now. mayor ma ko Youssou si gannaaw fii laa taxaw pour wan leen ne euh, macha allah boo gisee ñëpp a ngi taxaw everywhere ñi ñu toog dañu toog di enjoy toog di kii topp ma ñu dem salaamaaleykum waaye yéen fii aca na jolli na jolli bilaay dañoo kontaan ça va naka nga def noo tudd. bu baax maa ngi sant. happy new year. ah à vous de même à de même. Euh, lan lan lan ngay ñaanal sa bopp si at bu bees bi ak lan nga yeg tay kontaan rek kontaan di remercier sama chéri comme moo ma dagal billet jox ma permission ma ñëw sama njaayeen bi dama koy bisu. yow fan nga jógee ko ndaxte man dafa mel ne bi yëpp dafa mel fu ñu jógee. waa ñu HLM lañ jógee ñu ngi jógee HLM ñëw fii. pour bégal suñu xore ànd ak sama sœur ak sama jabar bu ñaawul bi ñu ñëw fétu ci noo tuddu nana la tuddu wa kon yaangi wajal la siis inshallah allah damay ñëwaat dafa neex may ma fee tuti jële ma fele tuti ay ngi nonu oh my god I wish you all the best I love you too darling Holal, tere nga bi matara li ñepp di wax xam tay kilifa dafay ne première dame mo tax mënu ma génne xaalis dal. mais dina ko génne après Légui wi ma comme d'habitude lan nga ñuy wax tay ña kañ lañuy xaar am jabar ci ña at bu bees bi Kassim bi mom 2024 bi la koy paré Kassim bi dama koy arrêté fi 2024 Joy allah eh, euh damay dal di continuer rek ah Eh, mi ngi noonu xool ambiance happiness kii nag sama turandoor la awa la tudd eh, noo tudd nga ne awa naka. awa gay awa gay waaw eh, yow sax defoo ko gay. man la Youssou di way <laughs> maa ngi lay ñaanal happy new year lo ñaanal sa bopp ak tey lan nga yëg yëg bu tey lan la. kontaan premier janvier mom. comme ni kau koy waxee rek dafa bokk ci taarixu Sénégal di ñaan yàlla yàlla may ñu fété ko ay at yu bare bare bare bare di ñaanal suñu papa Youssou Ndour yàlla euh, la ñoo bokk benn papa Mina Gaye xoolal yow da ngay fi xaaral sa mu daw dem liggéeyi te ñëw maa ngi ñëwaat léegi noonu rek nee naa leen côté bii nii laa bëgg dugg euh, ku waxal kii nga xamante ni euh, kii mooy borom miroir éco Maymuna madame Guèye mu ngi noonu moom du ma wone dama leen di dama leen di dama leen di dama koy bàyyi noonu madame Diop eh, comme bëggul feeñ damay daal di bañ a wane wu waaye kii mooy borom miroir éco waa IGFM kii mooy borom miroir éco that's it good thank you happy new year bonne fête à tout le monde merci. yaa ngi enjoy Youssou. waaw maa ngi koy enjoy comme d'habitude. yow mi nga xamante ne ñëpp xam nañ ne da ngay liggéey ak Youssou mais si côté professionnalisme euh, loo koy féddali waatal Sénégalais yi ñuy seetaan. ah Hana di ko souhaiter déjà meilleurs vœux si sama tour tour employé ñëpp parce que moom dafa nekk patron Je xamante ne ñëpp ñoo koy tiitaroo du dëkk mu may ñu jàmm vraiment ñuy liggéey dans de bonnes conditions ñu koy ñaanal le moment, xam 2024 bi lan la ci bëgg. Yalla nako ko Yalla défaral defaral ñu koy remercier di ko sant aussi pour la confiance à mon nom et au nom de tout le groupe de Futurs Médias. Euh, gis naa ne euh, d'habitude soirée yu bari nit yi dañuy dem sonu taxaw euh, ba bi ñëpp tok am classe comme d'habitude yow en tant que un expert dina milieu nga yàgg fi lool ah, loo may wax ci lool ah mais Youssou classe la woté xam nga 2024 bi dafa commencer commencé 2023 euh, bi jeex dimanche jeex dernière semaine nekk dernier mois donc on remet les compteurs à zéro classe la ñu woote. mi ngi noonu happy new year and enjoy euh, euh, mi ngi noonu kon boog nee fii moom macha allah ñëpp di enjoy ñëpp di am fan kii sama mbokku Gambien la nee waa Angleterre ñu ngi fii waa Belgium everyone is here girl how are you. By the way, you look all beautiful. Thank you so much, Awa. Thank you. That's the camera right there. You want to turn around for me, please? Hi, Toma. How are you? All the way from Gambia, just for you. This is breakfast. Um, lunch is on the 12th in the Gambia, and dinner is on the 13th. Hopefully, you will be there too as well. Yeah, yeah, sure. I'll be there, inshallah. Yeah, inshallah. Thank right. You What's your New Year resolution? Oh, let's leave the for another time. It's for you tonight, okay? <laughs> Eh, kon mbokk mi ngi noonu eh, sama copine bi yow li nga sol macha allah eh, noo tudd. man Khady Khady Diallo. lan mooy sa New Year resolution. lan ngay ñaanal sa bopp si at bu bees bi. di ñaanal ñëpp gudd fan weex waaw tout le bonheur du daal ñëpp ñëpp xaj ci. Euh, mi ngi noonu kon ma a lay bàyyi nga enjoy euh, ma dem dugg ci biir am ñu ma xool tuuti yundu leen tu vois ça def nga say bouton yu rafet. c'est le grand bal. waaw waaw. c'est normal. a wane. c'est normal c'est le grand bal. li nga def ba xeeboo ko. non xeeb moo ko naa woote. naa leen woote nga def yëfu ndaanaan. kon boog enjoy. ah c'est ça la mère. Euh, mi ngi noonu kii moom kii mooy koo xamante ni allah si ñun la nekkoon si ñun la nekk ba tey xaw ma xam naa dina ma jël ab leeral euh, ndaxte Ndoye Bane nee naa leen euh, li ñu naan voix du peuple nga représenté nit ñi di waxal nit ñi ba nga demee dugg si politique boobu ba tey occasion laaj la ko mais naka politique bi. politique bi neex la def rek jox ko ne xumb na <laughs> waaw waay Euh, tey ñu gis la nga ñëw ci li nga xamante ne Youssou suñu xarit la suñu papa la waaye suñu patron la euh, lan ngay wax tey ci bés bu mel nii comme d'habitude suñu papa la suñu patron la suñu xarit la moo tax su amee bës lépp lu ñu jàppoon dañ koy bàyyi ñëw euh, li naan dopp sax ci sot la bokk donc koo xamul noo noo koy def noomu la defa tax moom suñu gaayen la te xam nga c'est notre Youssou Ndour national moo tax dañu am plaisir ñëw chaque jour grand bal jàppale ko soutenir ko par daal nag bégal suñu bopp waaw. li leneen li ma la bëgg laaj mooy euh, élection yaa ngi ñëw dugg nañ si at bu bees bi en tant que maire waaye en tant que euh, nitu média euh, lan ngay wax. waaw élection yi dañuy ñaan rek yàlla indi indi ko ci jàmm ñu def ko ci jàmm kii yàlla may ndam yàlla jox ko ndam ci jàmm ak salaam waaye man su ma soñoon Amadou Ba la yàlla jox ndam li ndaxte man xam nga man damay politique Macky Sall laa àndaloon. nena nekul candidat nena nañ and ak ki nga xamne modi Amadou Ba man je supporte Amadou Ba à 200 pour te il va gagner inshallah ba waaw 100 la la la valider la. Ah? ma 100 la valider la xiyok benen 100. 200 pour cent sax ko mënoon yok yok ko inshallah euh lan ngay ñaanal sa bop ñaanal ko Sénégal way ñaanal ko Youssou waaw dama koy damay ñaanal sama bop jam ak xewal xaliss bu baree bari mo mën ko yobbu Pire. mën cee mën cee dimbali jaamu yàlla yi mën cee dimbali new di doole yi di ñaanal tamit réew mi jàmm ndaxte réew mi su amul jàmm doo am jàmm ah di ñaanal nag sunu patron bi jàmm ndaxte wax dëgg yàlla ki la boot di bëre dañ koy ñaanal mu am ndam ndaxte président Youssou Ndour daf ñëw boot di bëre te heure bu amee ndam rek sunu yokkute la donc dañ koy ñaanal mu yokk Goudiry Futurs Médias yokk ña fay liggéey yokk wuy ma foo ma gisal ndoy baan mu pàkkar ñi jëlal ma ko dem nag man nag man nag man nag dama ñëw. waaye première dama La première dame. Ah, avec protocole dem première dame demagul. non première dame monsieur. c'est sama sama xarit la nit sénégalaise la nit simple nit wax eh, merci beaucoup Ndoye Ban. Ah, once again eh, sama gars yi nee kiff leen damay taxaw damay di sama sama sama love.

di la souhaiter happy new year di ko sele di ko souhaiter Sénégal ñëpp di ko souhaiter ñu ngi seetaan ah di ñaan yàlla 2024 bi nga xamante ne moom la ñu dugg nii mu doon atum euh, jàmm atum salaam atum euh, xéwal yu bari ah Sénégal yàlla def fi jàmm ah euh, ku nekk ci li nga nekk rek yàlla na la ci yàlla fekk si defal la ci jàmm defal la ci sutura defal la ci xéwal defal la ci ndam di féliciter ñëpp. di ñaanal ñëpp 2024 bi yàlla na dàq 2023 ak yeneen at yi ci barke Seydina Mohamed. mi ngi noonu ah, kon enjoy yourself am na ku ma fi gisoon fu ma fekk daf may interview ku ma lakkal lool Kebs yaa ngi nii Kebs yaa ngi nii Kebs nuyul nuyul waa IGFM nuyul waa IGFM. IGFM nuyu naa leen. <laughs> happy new year once again. yeah happy new year bonne année yàlla na yàlla def jàmm def salaam ah sotti ko ci Sénégal ak bi. love you more. still bi still bi eh, mi ngi noonu kii fu ma gis daf may poñe tey nag yàlla man la jox doole bi te dama lay poñe xam nga lépp too fay <laughs> eh, happy new year happy new year to you eh, mais mais yow la kan sax yow noo tudd sax. <laughs> doomu nday Khalifa Mbergane. dafa wér. Nabou Ngom maa ko xam. ci lay dox. Euh, Nabou lan ngay souhaiter ñi nga xamante ne la faral di sétane di la bëggé di am mbégte contentement comme niñ koy waxé saa su parce que ñun lépp lu ñu nekk rek internet yi ñoñu ko def di leen remercier di leen wax tamit happy new year bonne et heureuse année 2024 année bi di ñëw yalla na dàq bi rom gëna neex. yalla na la yalla may borom kër. amiin yow it nga dégg ci monsieur. mun na am naa ñu xew xew. au tout moment à tout moment. all right eh, mi ngi noonu eh, léegi nag xam nga nu ñuy def damay jóge zone bi dem opposite zone beneen zone ba laa jëm waaw ma yuusu xoolal xoolal écran bi xoolal xale lu ñu make up ay ay ne. Sali laa tudd ay waay après. ma ne ko yow après. man yow laa bëgg. Sali loo ko wax. ci suba. man ma. neex eh, ma ne ko yow Sali. man yow laa bëgg. kon na neex. kon mbokk ak gaay mbëggee lañ mbëggee la woote kontaan ci Salimata bi mata Salim laa li ma jaaxal mooy Sénégal ñëpp a bëggante Sénégal ñëpp a noovante côté moom ndax dama fay dugg am na ay sali yu fi ne. Eh, kay yow waxal man waaye yow dégg naa sali rek nga bëgg sali nga bëgg. waaw Sali laa bëgg Sali kese laa bëgg moom kese laay topp. <laughs> waaw ban Sali wala kenn benn Sali rek. non damay bañ a wax sant bi parce que su ma waxee sant bi yeneen Sali bu ñu déggee rek du ma arrangé. <laughs> Ah, noo tudd ak euh, looy ñaanal sa bopp ak euh, ñi lay seetaan. Euh, Moussa tudd Moussa Tall laa tudd maa ngi ànd ak sama ay sœur sama ay cousin ànd ak sama yaay sama ay tante kër ga daal kenn desu fa heure bi Sali yëpp ñëw nañ. waaw ak Sali yëpp ñëw nañ am na Sali yu fi nekk sax mais grave bàyyi bàyyi bàyyi ma aju rek. Ah, am na ku fi ne moom lu mu sol lu mu sol. lu ñuul. lu ñuul ban couleur. muy muy xees pecc. Ah, waaw. coiffure bi. Ben, nan nan laa ko mën a waxee sax comme genre yi daal comme genre yi la def. Sali Sali bu Sali réew la def boo xoolee bu baax di nga ko gis. Euh, mi ngi noonu waa Sali ana Sali dafa dafa dafa mel ni Sali ngi nii de <laughs> dafa mel ni wuy Sali ngi nii Sali ngi nii ah non Sali ngi nii noo tudd. Mam Yaa. yow doo tudd Sali rek. ma tudd Sali rek ah d'accord kon bàyyi ma tudd Sali. lan ngay ñaanal sa bopp ak ñu lay seetaan. Euh, maa ngi ñaanal dëkk bi di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam yàlla def fi sotti fi ay xéewal def jàmm ñëpp am jàmm daal voilà. merci enjoy happen ah. anamu ah ok macha allah kay waaw kii moom dama fi taxaw lu tax lu ngi noonu mat na. kon yow yaay sali bu mag bi. <laughs> Eh, lan ngay wax d'abord sa bopp sa njaboot waaye surtout Sénégal. <laughs> maa ngi ñaanal sama bopp gudd fan wér gu yaram di ko ñaanal sama njaboot di ñaanal Sénégal yëpp di ñaan jàmm 2024 bi vraiment nekk année bu neex année bu naat ñun ñëpp ñu yëg ci suñu bopp loolu laay ñaanal Sénégal di ko ñaanal ñëpp eh, en tant que femme nga nekk si politique. Euh, lan mooy sa taxawaay euh, instant bii nii euh, si li ñu naan illegal migration xam naa ne enjoyment la ñu war a waxtaanee tey fan waaye loolu dafa bokk si li nga xamante ne ñu ngi ci ñu ngi koy dund right now yeah actualité. xanaa ñu def ko nu gën a rafetee rek def ko ci fair play def ko ci fair play nu gën a rafetee rek que le meilleur gagne. Thank you so much. I uh, souhaite all the best. Merci. xam nga nooy def yow waneel mal fii ambiance ngoog ndeysaan euh, Youssou fu ko nit fekk ndeysaan dafay màggal nit waaye Youssou nekk ku am kóllëre Youssou du wëy te euh, fàttalikuwul ñi nga xamante ne ñooy the legends of waaye of Africa ba tax na euh, ñii nga xamante ne ñoo nekk si si si diaspora bi ñëw pour enjoy ak moom dugguleet parce que Youssou dafa jox nit gëddam kii na la jóge ko ba america Euh, jóge ko ba États-Unis ñoo fekkee li nga xam ne mooy grand bal bi euh, naka nga tudd. man Olimatou laa tudd Amérique laa jóge waaye Gambien laa. waaye yow sama mbokk nga moo tax nga def ni soft really nice happy new year what's your new year resolution. good like everything is good like everything is moving so happy. so what are you wishing for. um long life more money health and then that's all that's all I need. Euh, lan nga sol nii lan nga sañ-sañ kind of oyofal ko nii rek nothing much though nothing much though dama ko oyofal because soo fi ñëwee da nga war a feeca baal dance jaru coquet solo simple and make it happen but to be honest with you Youssou Ndour um, Sénégal moo a am ambiance di kii bu bi I was here last time um, moto bu ma ñëwee this time ma xam ne ne Youssou dafa play I was excited to be here you know Well, ambiance in Senegal, mom, to be honest, is very nice with you, Sunu. I'm excited. I'm Thank you so much, darling. Kona, no one for one. fii laay taxaw rek xam nga lii mënul ñàkk lii mënul ñàkk lii mënul ñàkk mi nii kon uh, happy new year déjà happy new year laay wax ah, en fait sénégalais yëpp di leen ñaanal 2024 nekk at bi nga xamante ne at bu neex si ñëpp la di wax ñaan yàlla jàmm yàgg ci réew mi di ñaan yàlla teraanga bëri ci réew mi. gis naa yaa ngi jiitlante ak jib surprise bi lan dara dañ ñoo baal si comme ñëpp happy new year dañ ñoo euh, kon boog ni may def mooy damay wax sama caméraman bi jiitu ne yéeg si kaw a ma dal di temp fekk ko Aïe. Angela hein? Angela oh MashaAllah Angela li rafet happy new year merci c'est trop gentil bonne année à tout le Sénégal yow fan nga ko Sénégal fi nga wala nga ko pour li nga grand non non fi la deug Dakar la au nga comme chaque année comme à l'accoutumée ni ko toutes les années Nous fekkee bégal suñu histoire de démarrer la nouvelle année en joie et dans la bonne humeur. ndax gis nga fi évolution évolution bu ben innovation ben oui, absolument, comme euh, drone yi de d'Auchikao. Voilà, on adore vraiment. drone, drone. Exactement, c'est ça. Enjoy yourself. Hein? Ni wolof euh, français ok kon boog enjoy enjoy jëlama kii jëlama taas mbax bi ay waaw waaw ay ay waaw waaw beautiful ça va gis eh, naa style bi macha allah eh, naka def noo tudd. nii laay def ambiance bi laay ñëw Fi moo neex. fii moo neex mais. ay waay. mais wuy ma Khadija Khadija gis enjoy Youssou bu baax a ko euh, ñaanal Youssou kon. longue vie santé prospérité. le 6 le 6 ñu ngi fa. kon enjoy yourself. merci beaucoup euh, mi ngi euh, ñëpp ngi enjoy hello Thomas thank you so much gis naa ni nga def. I love you so too. I love you oh my God come here give me a hug. Eh, lan nan nga nekk di yëg tey jàkkaarloog Youssou muy muy tëgg comme d'habitude ngay kontaan. vraiment tey dañu kontaan vraiment teew fii ça fait vraiment un honneur pour nous tous d'assister à la soirée ñëw xam nga rek tout le temps on est boulot maison xam nga tey ñu ñëw rek partager soirée bi avec euh, nit ñi xam nga xappi ko après voilà quoi sant yàlla. mi ngi noonu dama lay bàyyi nga enjoy ma yëg ci kaw man man nee na ay xoolal ma fii. Yalla ma fi ambiance bi ni côté bi xoola xale yaa ngi ambiance Buma xolé wa gauche Xol wa droite ñom dañoo taxaw Déguma déguma. Contane rek dégguma wax Youssou

yow mom gis na ne mbay dafa jóg rek nga jóg taxaw yow no tuddu ma ngi tuddu mami. mami fujuge. joge parcel parcel nga joge te sen beur daan. da ah, gis nga de da dañu ñew tay rek ben yon chaîne bi lay génn ma Youssou Ndour Youssou ba Youssou Ndour lañuy genn ñun. wa sa lan la. gis nga de. yor say say yor ma may la ko. mi ngi nonu enjoy yourself. Eh, Bukon na la laaj vraiment lan ngay ñaanal sa bop ci at bu bes bi ak ñi lay sétane ñepp nekk ci jamm ñu nekk si jàmm enjoy nee naa leen si kaw laa jëm bu baax taxaw ayca. waaw fii laa bëgg taxaw fii. fii laa bëgg taxaw seen diggante mën naa fi taxaw. waaw. ki sa xarit la. sa xarit yéen a ngi en direct la kan ngeen lan ngeen di waxante. sama xarit la depuis bi ñu nekkee xale ba tey ñooy ànd. Mm-hmm. ñaata at. yàgg na. trop kon loo koy ñaanal. ma koy ñaanal gudd fan ak wér gi yaram yàlla defal ko jàmm yàlla taxaw ko aar ko sàmm ko ba kenn bañ a xaj suñu diggante daal. Mm-hmm. mi ngi noonu man samay xarit amul ma leen fayee eh, waaye yéen itam amul ma leen fayee. boo ba na jigen ñi lay waxal mais ana góor ñi góor bu gentle ni macha allah def sañse def def vest, ah ah macha allah eh, naka nga def madame mo fa jaar madame mo jaar si sañse bi kon fi lay taxaw fi fi lay taxaw fi lay taxaw fi lay taxaw fi lay taxaw wax ak monsieur monsieur ma ngi lay euh, nuyu di la bay nga nuyu ñu lay seetaan nga wax ñu no tuddu ak fo jógee. Euh, ma ngi tuddu Amidou wan Donc euh, annuellement, on vient fêter ouais, avec Yusundur euh, la nouvelle année en compagnie de la dame. Donc, euh, dañuy bëggee daal comme on dit. Euh, looy ñaanal sa soxna ak sa famille waaye sa bopp d'abord. bon li ñuy ñaanal soxna si sama bopp ak ñëpp avant tout mooy la santé et la paix nit ki boo amee wérgu yaram am la paix.

happy birthday <laughs> happy birthday to you. merci beaucoup. et Amina. Amina dund euh, Amine ma chérie. Eh, Amina kon spécial nga am. waaw loolu je suis avec mes amis je fais mon anniversaire en compagnie du roi et c'est tout bon.

waaw yow fii nga taxaw xoolal yow mi may seetaan kii ñëpp xam nañ ko mooy Fifi waa kii mooy Sophie ñaar ñii dañu nekk ay xarit donc su ma leen gisee dama ñu taxaw seen diggante lay taxaw waa fii taxaw. ndaxte kii kii tuddee na ko doom kii nekk sëram man ma doon xaritu kii di soppe yu kii kon ma xam leen ma ngi leen di ñaanal gudd fan ak weer seen xarit bi gën a gën a gën euh, lan ngay ñaanal waa senegal waaye sa bopp d'abord ak sa xarit alors maa ngi ñaanal sama bopp ak samay xarit 2024 euh, doon année naataange année xéewal année sutura boo xamante ne ñun ñëpp ay am jàmm amal la ko yow ak képp koo xamante ne yaa ngi dund yàlla defal la sutura lépp li ngay ñaan pour 2024 incha allah yàlla àggul ko walaay. sa digganteeg Sophie ñaata at ñaata at ngeen xaritoo. man ak Sophie est-ce que amul euh, plus de 10 ans ñu dem ndeysaan di ànd nekk ay collègues de bureau ñu dem ba ndeysaan moom ak jëkkëram monsieur Ndiaye defal ma cër. daal di may tuddee doom loolu mënu ma ko fàtte ci àddina moom rek laay àndal moom rek laa bëgg. loolu xam naa ci dara man Gambien bi Sénégambien bi dama ñoo gis seen xaritoo ma pour tax lu dugg comme nii waa soo soo waa soo borom sucré salé mais happy new year. happy new year awa. nga ànd ak monsieur Ndiaye. waaw ma ànd ak monsieur Ndiaye nëbb nëbb ko ne. comme d'habitude rek ma teg ko ci el bi. <laughs>

Wow, sama xarit nga. may ut place ni place fi fi sama xarit nga lolou yalla def nako ba pare ken munu ci dara. Sophie enjoy dama ne ñaana gudd far yow tamit nak eh, eh duma taxaw. ndeysaan ay xarit lañu way yow cameraman bi yow dama yegal ni fi dafa neex man nan lay def ba jall fi voilà ki may solution eh ambiance eh. ay non non ak yéen ah, <laughs> eh, kii nag kii nag mag nga dinaa ñëw si ñoom mais yow sama sama mag nga ñooñu bokk yaay Oumy Ndiaye. Eh, dama lay souhaiter euh, happy new year. waaye tamit taar bi jongoma bi tamit lan la. alors merci beaucoup ma chérie Awa gis naa la gis naa la merci. Youssou Ndour rek bëgg Youssou Ndour benn yoon la ñu si at bi mooy su tëggee. jeex na nga waajal ko def sañse xoolal li la woote si war a VIP. te xam nga yaay VIP bu mag bi. non yow la ñuy topp yow la ñuy topp. naa lay souhaiter une bonne année di ko souhaiter Youssou Ndour mais di ko souhaiter sama yaay Oumou Ndiaye borom TFM. Eh, gis naa ne yaa ngi yëngu si bi aussi eh, en tant que femme est mi ngi neex. bon politique en tant jigéen neexul. mais ki ñu àndal muy président Macky dañ koo bëgg dafa nekk respecté jigéen loolu moo tax suñu àndee ak moom tout le temps dafay yëkkati jigéen à fierté la pour ñu ànd président Macky di politique moom première dame ñëw waaw première dame mi ngi nii mi ngi nii soirée bi neex macha mu ñëw oyof ànd ak ñun fecc yi tey daa xam nga lan la ñu wax bégee bégee la woote mi ngi noonu euh, morceau bi passé léegi nii bi muy waaj a jeex ñii ñu nekk ñii ñu ne ñoom dañu doon jooy da ngeen a xaritoo bay jooy ñaata ñaata at de amitié la. yàgg na yàgg na trop. mais pourquoi ngeen di jooy. en fait en la quoi yëg la parce que elle eh, c'est dafa jàpp euh, sama xarit la mais dafa jàpp comme rakam si. ñoo ñoo juddoondoo ñoo defandoo lépp en fait duñ nëbbante dara lépp la sama lépp la xam man aussi léppam laa xam vraiment man awma sax fayam. mais d'habitude dañuy wax naan xarit amatul quoi. si mais man gëm naa ne xarit am na ba tey. yéen a tax ma gëm ne xarit am na mais man nan laa jonga ma wee nii. waa li ee eh, lii man laa jonga ma wee nii. mais filtre bi la filtre bi la. ah da ngaa jonga ma non si xarit am na man am naa ay déception ci ay nit ñoo xam ne dama jàppoon ne samay xarit lañ mais à la fin dama ne dama am ay déception ci ñoom mën a xarit amatul mais kii moo tax ma gëm na xarit amaat na parce dama ko xam mu def ma comme ku mbokkal ndey ak baay nëpp ma dara am man aussi nëpp ma ko sama dara. noo tudd nu mu tudd. man Nikita noo ngay waa tudd mais Nikita lañ may wax. moom moom naa ni Fatou Thiam. ah enn enn nag tam day ne. ak Zahra ma meilleure. ak Zahra Gadio Zahra naa ko. Zahra man dama ko xam. femme la boo xamante ne comme kii femme bu brave femme bu xam boppam femme de valeur femme bu liggéeykat interview naa la xam naa sa Sénégal comme da nga am ay militants ñi lay topp ma bàyyi la nga souhaité leen happy new year. maa ngi souhaité ñëpp ñi nga xamante ne ñoo nekk biir Sénégal ak monde bi yëpp happy new year yàlla at bi gën ci at bi.

en tout cas dañoo ñëw pour bége tey vraiment chaque année gis naa ne ñëppay waajal Youssou ñuy jóge fu nekk ci àddina bi pour grand bal bi euh, yow foo jógee man maa ngi jógee Tëngéej HLM euh, Youssou Ndour moom chaque année day gën a neex rek macha allah kon boog na neex enjoy maa ngi doxee neex <laughs> mais yow li la Youssou Ndour a ko waral. mais sa daaneel bi nga jël teg si temps baaral doon. non xoolal man Youssou Ndour laay wër ba fajar Youssou Ndour moo ma jaral lépp. maa ngi jógee ba HLM 5. ñëw fii waaw waajal ànd ak say waaw def tout noir vous êtes euh, ravissante allah. merci beaucoup di leen ñaanal at bu bees looy ñaanalaate. ah di ñaanal ñëpp jàmm. ak salaam fan wér xéewal bu bari jàmm sax si réew mi am si réew mi Youssou yàgg fi lool te wér yàgg fi lool te wér man Youssou baax a bëgg sama xol laa ko bëgg Youssou Ndour mooy tax may yàq sama nelaw amul leneen lu may yàq ci keneen Youssou Ndour rek laay wër Youssou Ndour rek laay topp léegi wuy ma enjoy dafa lu la saf mi ngi noonu nee naa leen everybody is here to enjoy ñëpp a ngi fii du am fun mun naa fi. fii ça va madame yaa cool macha allah sangu daan ko sangu daan ko sangu daan ko ça va noo def maa ngi nii noo tudd man Awa laa tudd ah sama turandoor nga waaw waaw waaw wax loo wax

Sangunanku Sangunanku London, Los Ángeles, Paribério, Lunele, London, Tokyo, c'était au lien, l'Inuniele. man Ali laa tudd. Ali Ali. Ali yaa ngi enjoy yaa ngi fecc lu neex. mais dama war a bégal sama bopp bégal sama xol féexal sama xol wala gisoo loolu. Aliou Aliou looy ñaanal sa bopp. non gudd wér gi yaram ñu yàgg ñu yàgg fete lii parce que lii dafa neex ñëpp fi daje yàlla na réew mi am jàmm ñëpp am jàmm. oh, oh mi ngi jooy bu jooy lu neex dafa neex xoolal fii laa jëm xale yi dañu sañse xale yi dañu sañse fee moo dàkk maa ngi dem fee fee moo dàkk fii laay dem non fee moo dàkk. Eh. fii fii laa bëgg a jaar yéen fii la xale yëpp nekk. fii la xale yi nekk. fii la xale yi nekk. fii la xale yi nekk. fii moo neex. te fii moo neex. fii moo neex. dégg ma fii moo neex. fii moo neex fii la xale yi nekk. waaye yéen fii ngeen di nekkate. fii moo neex moo neex. ñi ñi sañ sañ ñëpp fii lañ. fii dafa neex. àjjana soriwul. dégg ma. nekkate àjjana soriwul. fu mu nekk nii fan la fan la. fii la <laughs> xoolal. Je ne dugg pas waaw waaw damay damay temp nii nag ndeke xale yi fii leen ne waaw yow tax nga ma jóge ñëw allah est ce que mën naa toog voilà parce que comme affaire bu neexee damay bañ daanu waaw def yëpp moom lu muy def bégal xolu nit yi bégal xolu nit yi sa gloss tam duñ ci wax sa gloss sa gloss sa glos duñ ci wax sa glos. xoolal gis naa ko neex na la. noo tudd ak looy ñaanal ñi nga xamante ne ñoo lay seetaan. maa ngi di ñaanal ñuy béggee xol bu féer paix intérieure succès ak santé. mi euh, daal di tourner euh, sama xarit yi nga xam dama leen gis fële ma ne il faut ma yéeg euh, ngeen def tenue soirée bu amul fenn ngeen di enjoy. Euh, lan ngay euh, wax ñi nga xamante ne ñoo seetaan ak sa bopp of course. waaw di nuyu ñëpp ci nouvelle an bi di naanal ñëpp jàmm ak salaam Youssou Ndour daf ñu ko tàmmal nag chaque année moo tax ñuy ñëw di ko féete soirée VIP ñun dafa dem ba mu bokk ci ñun man ak caba mi toog dafa dem bokk ci ñun macha di souhaiter bonne et heureuse année sama frère Youssef chéri Chacha madame de Stéphanie baayu sama yaay Astou bébé Penda ay dara ak Habib Sy ak Papa Sarr. man nee naka te xale côté bi lañu ne. maa la wax lé xale yaa ngi ne ci kaw. xale yaa ngi ne. ndeke xale fi lañu ne. wa na ngeen. euh mi ngi nonu kon boka enjoy euh damay def ni rek. mi ngi nonu mohammed daf ma jele ci kaw wacce ma ci souf ma dal di temp ndànk fasiyene yéene fi daal di tëj côté bi dem fee euh, su fekkee ne yéen a ñuy soog a seetaan waa IGFM ñoo fas yéene bi nit ñi wan dund fii lan la kon let's go. happy new year. yeah and happy new year. Euh, lan ngay ñaanal ñu seetaan ak tey sa taxawaay tey si bés ah, di ñaanal jàmm rek ak xéewal yu bari ak xéewal yu salaam wér lépp rek di ko ñaanal sénégalais yëpp. noo tudd. من خادم خادم سيسي انا سوخنا سوخنا سي ميغي فا ميغي في كرك نا ميغي فا ميغي كرك لا سيس لاي واجال مو وا لا سيس لاي واجال ان شاء الله انجوي انجوي يو دا خاوا بول غاي سونو

xam nga tay TFM nga ñëwoon bii di IGFM te tu es en direct yaa ngi en direct nii sank dañu décortiqué woon sa sañse waaye dafa dafa xawoon a gaaw ma bëggoon a jël sama temps nga wax ma sa dàll lan la ah dàllu Alexandre McQueen laa laal rek tubéy bi lan la tubéy bi Prada la o bi lan la bi Queen Yaxa moo ma ko jaay <laughs> mais euh, maa ngi lay wish happy new year ma bàyyi la Maguette Chanel nga nuyu ñu lay seetaan. waaw maa ngi nuyu ñëpp tey moom dañu ñëw pour enjoy parce que Papi Youssou moo xewle te comme bu xewlee ñun si famille bi lañ bokk daf ñuy yónnee invitation dañuy ñëw wuy si ko te amuñu benn événement lu dul Youssou Ndour ku ñu gis ci soirée rek soirée Youssou Ndour nga ñu gis. donc kii woote moo toll noonu moo tax eh, looy ñaanal ñi nga xamante ni ah, dañ lay faral di la topp ñoo xam ne yow rek yow rek la ñuy

fii dama koy tëj fee dem tëj foofu kii wax na kenn dootul waxati jeex na ma jëm ah dama bëgg nga lekk ma mbaa nga firi ma sama cousine bi daa jógee kii ñëw fii pour ñëw ci Youssou Ndour moo ko tax fan la fan la la ah ma na nga def ma ngi fii mais je parle je parle pas wolof tu parles pas wolof you speak English Right. Uh, how are you? I'm very good, thank you. I'm having an amazing time. Happy New Year! Happy New Year too, thank you very much. And what's your New Year resolution? Um, so, coming to Senegal more and learning Wolof. Enjoy yourself. Happy New Year. lépp man at baat laa lan ngay ñaanal ñi lay seetaan ak sa bopp. santé wér gu yaram ñuy happiness daal boole ko jaamu yàlla. mi ngi eh, may ñu dugg alors enjoy sa bopp. waaw mi ngi neex. oh no, no. def lu weex def blanc la paix. merci beaucoup happy new year. happy new year. waaw madame orange noir li nga def si couleur mbaa xeebuloo ko. non xeebu ma ko non non. Youssou moo ko waral waaw Youssou moo ko waral kon enjoy. fii nag mooy sama feev sama gaay yi fii la ñu ne gis nga groupe Futurs Médias dama leen di woon si gannaaw euh, nu ñuy liggéeyee ñu ngi fii di liggéey depuis si suba ñu ngi fii pour rek lii sotti waaye am na ñu yëg si ay chaise am na ñoo xamante dañoo toog. bëgguñoo gaaw a sonn ba tey dañuy ànd ak dem ba ci kanam waa li nga sol tam lan la noo tudd. man laa tudd. Marème noo sant. Baabu. Baabu. Baabu naar. Ah, sama tante nga sama yaay Baabu la sant. waa li nga tam Marème lan la. tuddee naa la ko. Eh, looy ñaanal ñi nga xamante ne ñoo lay seetaan. ah ñëpp jàmm ak salaam rek. ñu yàgg koo rek. merci enjoy. waaye li nga snap tam lan waaye li nga snap si at bi lan <laughs> noo tudd. awa. ah awa dañuy xaw a am kii nag de gis naa loolu feeñ na li nga sañse macha allah. Eh, malay bay nga ñaanal sa bop ak ñi lay euh eh, ma ngi ñaanal ñepp ak awa ah, fo joggé bar ñi bar ñi bar ñi. bar ñi joggé ñew fi di enjoy. ko yone snap bi. monsieur mo mari la ko yone <laughs> kon enjoy. no len def. wa seen jili wa tonto petit. ma tonto petit.

ok maa ngi fine foo jógee Gambia. waa Gambia. ñëw pour Grand Bal. ah. fii mooy Grand Bal bi ñu ngi bu andi 12 ñu toj ko si digga waaw. Eh, nan nga tudd daal. Aida Aida Camara. Aida lan mooy sa am xanaa di ñaan yàlla def jaama. gën boole Gambia ak Sénégal parce que benn réew la waaw soo ko xaree daal mu tëddee ka daal. awa Sénégal bi mat na xoolal enjoy fii lay taxaw baal ma de baal ma de baal ma problème may jéggalu de boo ma tontoo ma jël de <laughs> <laughs> Gambia sasa Gambia. ay Wow, wow. ay mi ngi noonu mat na sëkk ah naka nga def waaw mais kontaan rek quoi di remercier sunu Gambia, bi nga dafa jóge ba sunu juga bi jóge ba Canada waaw Canada ak Italy. juste pour grand bal bi waaw kontaan nañ no, noo tudd yow man Abdullah laa tudd Abdou Diaw Abdou Diaw nga def uh, blue def bleu def black Wah, xam yang rek ñun waaw mu ngi noonu daal mënuñoo wax wax lu bëri mais de toute façon dañuy jëm rek. mais yow boo jéem boo jéemee kon kan mooy mën. waaw mais dañuy seen rek dañuy a rek mais nag ñun duñ sànc dañuy solo. Eh, ah yow foo jógee. waaw man Istanbul laa jógee. waaw Istanbul laa jógee ñëw fii quoi. enjoy. merci beaucoup. Eh, yow nga jógee fan ñëw Grand Bal bi. waaw man euh, fii laa dëkk en ah, Sénégal laa jógee mais ngi dund Italie quoi da nga ñëw fii pour grande balle bi. waaw effectivement ñu ñëw fii pour grande balle bi. Eh, lan ngay eh, ñaanal Youssou kon. waaw Youssou ñu koy ñaanal fan bu di ñu bëggal. Eh, soxna si yow noo def. Canada Canada nga jógee. waaw Canada laa jógee. comment. ma ne Canada nga jógee pour grande Wow waaw. pour Wow Ndour. waaw waaw. looy ñaanal waa

Awa Ndiaye madame Ndiaye awa looy ñaanal monsieur ak ñi seetaan. monsieur Ndiaye maa ngi koy ñaanal jàmm xéewal suturaat su bëree bëri bëri bëri yàlla ko jàmm fa France yàlla ñu ko sama wet namm naa ko <laughs> namm naa monsieur euh, euh, looy looy ñaanal Youssou parce que euh, gis naa dañ koy def rendez-vous añ wala rendez-vous pour ñëw dañ koy ñaanal yàlla guddal fanam vraiment yàlla may ko wér. yàlla yokk fan yu mu gudd lool macha allah da ko Youssou Ndour de bëggal suñu xol yi yàlla fi yàlla bàyyi ba ci kanam ak kanam ak kanam. li nga sañ sa lan la <laughs> kii li mu sañ sa lan la ànd ak doomu ndeyam si wet bi nga def sa mini veste toq veste. man maa wax. waaw waaw mën nga sañ see. waaw gis nga waaw wan ma sa sañ sa kon. gis nga mini veste rek laal baa laa kon enjoy enjoy. nee na fii lay taxaw fii mooy fu baax fii waaye noo tudd madame Sow Xawa madame Sow ay sama surandoor nga moo tax nga bëgg ambiance waaye yow ah, looy ñaanal Youssou a ah, gudd fan wër gu yaram bu neen li gis la ndax Youssou seetaan la Youssou laa bëgg mu gis la waa ah, ah kii ku ma yëpp nee na Ibadou laa pare di pooc <laughs> eh, dafa lan la wax Yo, yo, yo, Mama, de primeira já havia vi. Uau, uau, já lá. Quem vai preferir? Quem vai ser prefere, Yusu? Yusu, Yusu. Quem ser prefere? ¡Eh, que se malen, que se malen, que se malen! si tey soirée bi moom neex na trop. kon mooy Youssou Ndour moo la gën a neex. yëpp. yëpp yëpp yëpp. lan la wax. ay. wax leen Youssou. wax leen Youssou. mi ngi mi ngi neex. waaw mi ngi neex moom macha allah. Eh, yaa ngi baal Youssou naay. waaw maa ngi koy bëggee de bu baax a baax. kon looy ñaanal Youssou. waaw maa ngi ñaanal waaw. Eh, ñaanal baat bi waaw. bu fi te amin amin amin lan mooy eh, lan ngay ñaanal sa bopp si at bu bees bi ak ñi lay seetaan. <laughs> baal ma baal ma baal ma. <laughs> nee na ko ñaan bi ñaan bi ñaan bi. bàjjan nga bàjjan. ah na waar. est-ce que bàjjan nga. man bàjjan laa. la lay wax sa càmmiñ. kontaan. si sa càmmiñ. sama càmmiñ bëgg ci moom. may bàjjan mu bëgg ma dénk ma gone yow yaay bàjjan nan. may bàjjan wóoli ma te Juuf. dégguma loolu. aywa. bàjjan nan ma ta aywa. looy ñaanal sa bopp ak ñi lay seetaan. ma leen di ñaanal at yu bëri ñu koy fekkee kontaan enjoy. di koy enjoy. bàjjen bàjjen. waaw waaw. ndeke fii moo da ngeen a sonn. non sonn ñu sonn ñu. coro tax ma gis leen ngeen toog bëgguma ngeen toog. ana caméra bi ñëwal fii. bëgguma kenn toog dama bëgg ñëpp jóg fii kan mooy wax madame Ndour madame wax wala madame Gaye eh ma fii nag madame Ndour wala madame Gaye wax Gaye sant Ndour a xewle ban la Gaye sant ama ah, ne waa gis nga yu Ndour xewle kuy wax kon bokka looy ñaanal sa bopp ak ñi seetaan bonne année enjoy enjoy kon mbokk mi ngi noonu eh, sama xarit bi sama magu bopp bi. waaw loolu moom am contentement. maa gën a kontaan si yow. waa awa ci loo maa ngi nii. maa ngi nii rek borom TFM maa ngi nii rek borom jotaay bu neex. te wuy ma lay ñaanal sa bopp ak sa xarit Binta ah xanaa kontaan rek di ñaanal sama bopp gudd fan wér am kattan bu baax mën a toppatoo client mën a toppatoo fans yi ah di yàgg ñëw si yu di bëgg rek di ko ñaanal gudd fan suñu papa baax ji di ko ñaanal wér yokku taxawaay sant daal macha allah ngi noonu enjoy. man maa ngi nee di dem yow fii mooy dernière bi ah yéen waa France ngeen Ndey Fatou Adja waa man damay yéeg yow foo jógee Sénégal ah parcelle nga jógee nga ne foo jógee Belgique nga jógee ñëw pour bés bi ah d'accord waa Ndey Fatou nga def sa noir argentin macha allah happy new year happy new Year. Euh, looy ñaanal sa bopp ak ñi lay seetaan. maa ngi ñaanal sama bopp jàmm ñaanal ko ñëpp ñaanal ko bépp àdduna. happy new year. enjoy euh? ko bëgg moo nekk suñu xol dañ koy bëggee moo ñu jaral lu ne ñun yu lañ bëgg suñu xol moo ñu jaral lu ne barke Serigne Fallou Mbacké Youssou Ndour dundal 111 ans yaa ñuy bëggal yow rek lañ bëgg yow lañuy topp yaa ñu doy. yaa ñu topp ku wóor waaye nag balaa may tëj dafa ko xam ne dama ko fi mu nekk macha allah nit ku baax nit ku baax macha allah happy new year. happy new year toi aussi ah, wax na na naa la. waaye kontaan gis la. xam nga ku la xam sañse la la xamee. wane leen ma sañse ba pare ma soog ko li nga sañse lan la. simple rek. sa dàll yi lan la. tuuti per kii rek per zara wu simple rek zara. tubéy bi lan la. tuuti sa zara aussi. chemise bi lan la. dë dë dë dëvret dëvret benn coiffeur rek. happy new year good naa la. ñaanal ñi nga xamante ne ñoo lay seetaan. maa ngi ñaanal Sénégal am jàmm dèjà Sénégal am jàmm nit ñi nit ñi féexe seen xol képp ku amoon naqar yàlla na génn naqaram képp ku nekk ñu ne ci hôpital yi yàlla na yàlla dimbali ñu génn fa ñu nekk prison yàlla dimbali leen na jàmm am daal jàmm am daal. jàmm and love. waay waaye xale góor yi dañoo sañse li ngeen sañse tam mbaa xeebu leen ko daanaan la ay ay ay ci a jëf na jëf si man bu jógal tuule naka naka nga ana ana foo ana liberté 6 ah, nga ñëw si fii sumi naa daal yi daal yi ma ko fa bàyyi kër ga kër ga kër ga laa ko bàyyi kër ga laa fi ñëwee tànku neen nga ñëwee damaa dox liberté 6 ba fii yu rek lay topp lay ñaanal sa bopp ak

As Mbaye laa tudd. liggéey pooj mbaa waaw ñëw ci yëfu yëfu grand bi rek. Eh, ñu dundandoog moom. Mbaye Dièye di suñu frère. mu yàgg ak moom. ñu suñu depuis 73 ba léegi. moom moom si biir seg-seg. kon bu xewlee le premier ñu ñëw di bëgg. fii loolu ma may dugg fii. dañu lay bëgg nag sama cher sama faux chéri. sama chéri bi yow yow nga fuuxal ma. tas say bi gisatuma la mais namm naa la. maa la raw. bu baax a ngi nii dama lay ñaanal gudd fan ak wér. yow tamit ma lay ñaanal la même chose tu es quelqu'un de spécial. merci tu es magnifique magnifique. <laughs> so tell me. looy ñaanal sa bopp ak ñi lay seetaan. bon jàmm rek lay ñaan. ak sutura Sénégal ni ñuy yërmante bëggante nekk si jàmm at bi aussi ak élection yi di ñëw mu ànd ak euh, jàmm ñu def ko si jàmm. def ko ki yàlla fal ñu fal ko surtout ça mo gëna important ci 2024 bi lepp li nga xamné ne dëkk ko ñuy seetaan ñu koy xaar yalla buñ ko gis yalla na doon élection yu sedd guy à partir de là Sénégal nak tànk ba ca kaw. mi ngi nonu euh, kon boog ni ñuy def moy euh, xamna buma topé ambiance bi du jeex waaye yow mi may seetaan di la bëggee baax damay dem taxaw fee Youssou nek sama background. yéen ñu ko gisagul ngeen gis ko enjoy ko ma daal di fa tëjee nag li nga xamante ni ah, mooy suñu special ah, night di leen xaar nak incha allah di leen jox dig daje the sixth nañu waaxu ne ba ne ma daal di temp ndànk comme xam nga damaa def red carpet ba pare ñëw fii waajal sama boobu ah Mohamed merci beaucoup thank you so much Mohamed da ngaa baal yaa ngi en direct Cheikh baal Non, de ma part, en même temps, je suis venu pour travailler. Donc, euh, TFM, IFM, Yop Sibir, voilà, exactement. See you later. I ah, see you. kon mbokk di leen wax guys thank you so much eh, kontaan nañ torop torop torop eh, Sénégal yuusu amul seen fay waaye ñun itam amul seen fay ndax saa xewlee rek yéen ñëpp ngeen taxawuñu waxat ñun jàppale ñu sañsel ñu ñu jàpp si li nga xamante ne mooy yuusu moo leen di bégal parce que nit a ngi jéem taxul mu bég kon yuusu lañ koy ñaanal gudd fan ak wér yaram di ñaan ñëpp nag euh, di wax ñëpp que suñ bëggee am yu baax a baax IGFM la ñuy taxaw IGFM moo la ñu actualité yu neex a neex a neex macha allah xam nga li may def damaa yegg si kaw Youssou nekk sama background xam nga pour que yéen ñi ko ngeen gis Youssou dund ko and direct xoolal di leen jox di gajere wala siis incha allahu di remercier ñëpp képp koo xamante ne yaa seetaan nañu suivre I love you so di la jox di daje di la ñaanal jàmm salaam Sénégal ba àdduna yëpp